kooku mooy gañ ñan waa PDS bu fekkee ni seeni i voix nan leen di topp xam nga nag aussi PDS mën nañoo dem te du ñu yóbbaale seen i loolu mën naa nekk bu fekkee ni seen électeurs dañ leen topp ca kañu dem mooy gañ surtout bu deuxième tour amee parce que bu fekkee ni PDS dem na ci benn candidat yóbbaale ay cinq cent mille voix yaakaar naa ni candidat boobu du neex a gañ xalaat nga ne après tout ce qui s'est passé ak Amadou Ba ak accusation yi PDS tekki ndoddam PDS mën na déterminer wu en faveur de benn Bokk Yaakaar. lépp mën a xew ci politique. en faveur de Diomaye wala en faveur de Idrissa mën a xew ci politique. deuxième tour élection présidentielle di bokk mi Abdoulaye Wade mi Abdou Diouf dàqoon mu am problème ñu génne ko dàq ko fépp moo dem soutenir. lépp mën a am politique. est que yëg nga ay négociations yu am ak négociations yi fan la ñu toll. non PDS kay ñëpp ñu koy courtiser euh, benn bokk yaakaar proposé nañ leen lu nekk poste premier ministre ay membre du gouvernement benn quota député directeur général lépp lañ leen proposé. Karim nag nee na papa mooy décidé. bu ñu absteniroo nag comme ni ñu ko defee en 2019. abstenir est-ce que loolu ce serait responsable ci enjeu bu mel ni Sénégal am dañuy dugg ci eeru pétrole yi dëkk bi war a tegu ci loxo loxoy wóor est-ce am na droit abstenir ci contexte bu demee nii. Hmm?